asalaamaaleykum euh, chers internautes ak euh, téléspectateurs yi nga xamante ni yéen seetaan lii di Rewmi TV dalee nag jàmm si seen euh, émission biir réew mi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek seen émission hebdomadaire bi ñuy waxtaanee fànn yu bëri comme ni ñu koy waxee lépp loo xamante ni askan wi dañ ciy gis seen bopp moom la ñu andi fii seen émission biir réew mi ñu waxtaanee ko tey nag suñu émission nag ñu waxtaanee ponk yu bëri bëri yoo xamante ni moom moo ñeel wàllu collectivité local yi lu ko jëlee ci développement local lépp loo xamante ni daal dafa concerné collectivité yi yi jëmale ko ci li nga xamante ni mooy élection yi jëm aussi moo nekk tey li ñu war waxtaanee ko samay euh, invité comme ni ñu koy defee euh, saa su nekk euh, may dalal ki nga xamante ni moom mooy Abdoulaye Sagna nekk chef de directeur cabinet bu Mamadou Bara Gaye nekk maire bu Yeumbeul Sud waaye tamit nga xamante ni mooy Abdou Khadre Ndiaye nekk expert en politique publique et développement local nekk aussi diplômé de l'école normale supérieure en lettres modernes en histoire et géographie nekk aussi un titulaire de diplôme universitaire Euh, générale en droit euh, sciences politiques à l'université Cheikh euh, Gaston Berger bu Saint-Louis nekk aussi membre ci COJER bu fi nga xamante ni moom mooy Louga nekk si commission scientifique bi donc tey nag ngeen mën a déglu tey fan yu am solo yoo xamante ne dinañ ko waxtaane tey durant benn tour d'horloge bi nga xamante ni la nekk tey ci émission biir réew mi donc mais laataa ñoo dugg rek ci vif du sujet bi ne damay bàyyee sama ay invité ñu di xamante ni ñu seetaan euh, fii ci Rewmi TV euh, monsieur Sagna ñu ngi lay nuyu bu baax. Euh, jërëjëf Mor Fall maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu di la sant la gërëm bu baax a baax ci invitation bi. Mm-hmm. di nuyu mboolem sénégalais yi ñuy seetaan tey ci Rewmi TV. Mm-hmm. rawatina ñu nekk ci biir réew mi rawatina doom bi yëmbal sud ñi nga xam ne ñoom laa représenté ci digalu monsieur le maire Bara Gaye. voilà jërëjëf sëñ Abdou Khadir Ndiaye ñu waaw maa ngi fay di nuyu d' abord suma co-débatteur bi. Mm-hmm. di nuyu auditeurs yi ak auditrices yu réew mi euh, di rafetlu aussi invitation bi di la nuyu yow aussi ci présentation bi mucc ayib bi ngay faral di def ci euh, émission yu bari parce que ñu ngi lay faral di suivre à travers les réseaux sociaux aussi di euh, saluer qualité kii bi service bi ñu rendre nation sénégalaise di aussi Sénégal yi nga xam ne si de loru nañ ci mbënd mi wala ñu loru ci feebar bi yëpp may euh, di leen jaale di jaale seen euh, ñi nga xam ne si ñooy way daylu mm-hmm. di wax suñ borom mu euh, ñaax leen suñ borom gën leen dimbali mm-hmm. gën leen a jàppale mm-hmm. askan bi aussi mu gën a jàppante su suñ biir que ñi nga xam ne génn nañ ci àdduna yàlla may leen ñu am àjjana yu gën a kawe àjjana euh, firdaws voilà donc euh, di ko jaajëfal donc si moom la ñuy ubbee li nga xamante ni moom mooy suñu waxtaan euh, tey jëmle ko ci lépp loo xamante ni moom moo ñeel wàllu collectivité locale yi daal di koy accès nga xamante ni moom mooy développement local moom moom na jàppale sax xam-xam màcc na ci wàllu woowu wàllu politique local donc Sénégal fi mu nekk nii depuis ay années ñi ngi def seen ay jéego ngir mën a def li nga xamante moom mooy développement local lépp daal di koy accès si nga xamante ni moom mooy agriculture la décentralisation donc à chaque fois ñuy ñuy faral di euh, utiliser benn concept naan développement local ba sax euh, danañu intégrer Sénégal benn euh, benn institution bi ñuy wax ADL muy agence de développement local mm-hmm. donc yow boo boo amee juste benn aperçu booy def ci li nga xamante ni moom mooy développement local wala benn définition booy jox li nga xamante moom mooy développement local en tant qu'expert ban gis-gis ngay ngay ngay wax ci li nga xamante ni mooy développement local ak Sénégal yi ñu koy defee. waaw xam nga développement local. dafa nekk loo xam ne si xam nga état euh, maire yi euh, démembrement état la waaye état président de la république askan wi moo koy fal maire aussi askanu goxam moo koy fal donc kon état dafa war a liggéey ak maire yi liggéey bi ñuy liggéey à travers ay fonds au moins il y a trois fonds yoo xam ne si ne ay moyen ay ay ay xaalis day état bi jël di ko def ci collectivité locale yi waaye dañoo seetlu ne xaalis boobu certes mi ngi évoluer positivement mais teewul euh, bébét di ak bëgg-bëggu collectivité locale yi parce que bul fàtte ne Sénégal avant ak 3 bi di ñëw ay communauté rural moo bari woon communes yu bëri ñu woon naa acte 3 bi dafa def communalisation intégrale maanaam mooy communes rurales yi dañoo mujj nekk ay communes bi nekkee commune nag moo tax kon Sénégal nekk na ci cinq cent cinquante sept euh, collectivités locales maanaam ay mairie hmm. ak quarante cinq départements plus Kër Massar bi ñu érigé département muy quarante six départements donc ñu nekk ay collectivités locales parce que actuellement c'est deux collectivités locales moo am dañ département ak commune bu njëkk ñett la woon ñett moo amoon bu njëkk avec la réforme de 2013 donc deux collectivités deux ordres de collectivités locales moo muy euh, la commune hmm. dirigée par un maire Et ensuite, le conseil départemental dirigé par un président de conseil départemental. Maintenant, bu ñu wax développement local ñu ngi bëgg wax euh, ab gox boo xam ne si nekkinam day dox te ni mu doxee mooy ñu nekk ca gox ba ñoo ko war a doxal dont état bi ak partenaires yi techniques et financiers yi bi nga wax ay partenaires la agence de développement municipal ñoom am na projet yu maire yenn maire yi am ADM moo leen yaa ngi dégg lu mel ne inondation yi directeur ADM bi récemment invité nañ ko ci ay chaîne de plateau mu expliqué ba nga dégg ba ay nit ñuy wax ne ADM ban rôle nangam yu demee noonu donc développement local bu ñu ko dee wax war nekk loo xam ne si ne ñiy teg ci gox yi day d' autant que dañoo war a dem ci ay élection ñiy teg ci gox yi dañoo war a nekk ñoo xam ne dañ leen faa war a non pas pour par parlo non pas pour parti politique non pas pour fii nañ bokk wala fee nañ bokk mais ñoo xam ne si leer na ne ñii set nan ñii am nan xam-xam ñii am na moyen am na relation noonu na ni fale njiit ci ab gox waaye du du du euh, fal goo xam ne yaa ma neex la parce que développement local lañ wax bu kenn yaakaar ne euh, dañuy jël nit teg ko ci ab gox ay nit jóge ci àll ba ñëw fekk kooku ca goxam ñu ñu ñu ne ko am am am am am avancé loolu amul ça ne passe pas comme ça donc ci li nga xamante ni moom mooy euh, li tënkee wàllu développement local est-ce que ah. day exiger ki nga xamante ni moom la ñuy tekk ci euh, bopp kuréel wala boog ci bopp li nga xamante ni moom mooy benn mairie da hmm. dafa war a am ay critères yoo xamante ni moom la développement euh, local exiger nekk am am compétence yi ah. pour mën a euh, ay projets yu mën a mën a jëmbal localité waaw xam nga sax boo xoolee d'ailleurs xamoon nga ne élection maire ci Sénégal lu nekkoon lu doyoon waar la parce que élection bi deux élections la woon d'abord conseil municipal yi la population bi fal ba pare après ñoom daje conseil municipal préfet wala sous préfet euh, ñëw daal di ñu voté conseil municipal yi voté daal ne diw mooy maire diw mooy adjoint xam nga loolu moo doon loolu nag dindeeku na xam nga xam nga comme désormais ki nga xam ne mooy jiite liste proportionnelle bi ñu def ko tête de moom mooy nekk maire maanaam ku ku amatul léegi ku maanaam population yi ba la ñuy wote dañuy xam ne moo Jóob mii wala Abdou Fall mii wala Moussa mii wala Awa Diop mii mooy nekk maire parce que bu njëkk nit ñi dañoo ñëw defal seen liste rek tappale dajaloo fenn ne diw diw diw ne liste bi ñu yore baax na ku ne nga ca population bi dem voté leen ko mën naa am sax benn waay boo xam ne am na xaalisam wala na yor nay moyen wala mën naa ger gaa yi woo leen ci guddi dajal leen seen kër leneen bu subaa voté leen ma conseil municipal 40 conseil daje par exemple korom 40 conseil daje 20 bi 20 plus 1 rek bu ñu ko voté lee mu jàll noonu mm. duñ ci ëpp moo tax nga dégg ñu naan diw jënd na diw ak yooyu waaye loolu amatul askan wi bala ñuy fal dañuy xam ne yow mi yaay maire wala kii léegi nag loolu dafa am solo xam nga lu tax mu am solo ndaxte ki dañuy xam mooy kan danañ xam ndax kii suñ ko dénkee 1000 francs du lekk 1000 francs yi kii suñ ko dénkee 1000 francs mën na fexe ba dem indi 2000 teg ci parce que maire ñett moo ci moo ci am ñu ci bari dañuy wax développement local daana ci dikkat parce que maire ñett moo ci am soit dañuy xëy jox la budget budget mooy ressources yi ñu am ci dëkk beeg yu demee noonu yi nit ñi fay ay droit yooyu ñu indi jox la ko bu ñu paree ñu def ko ñaari rubrique ñu ne lii budget fonctionnement la par exemple bu nekkee 100 millions ñu ne 70 millions yi pour fonctionnement fonctionnement la 30 millions yi pour investissement yi dañoo dem ak ne ci loolu maire yu ci bëree bëri sur les 557 maires man j'ai fait presque de bëri na maire yu bëri yu ma wër ci Sénégal dem ci ñoom dem ci seen maire gëstu fa xool fa mais li ma gis li ma remarqué mooy am na maire yoo xam ne si franchement ñoom ñu liggéey liggéey bu mucc ay xam nga kii il travaille avec Bara Gaye que je au passage ma ngay liggéey foofu liggéey boo xam ne si man xam naa ne yàmbaar la fa man am na yeneen maire yoo xam ne wër naa leen bon xam naa leen nii de près musuma leen a gis sax mais dem naa ak ay société civile ak yeneen nit ñu def leen ay audit am na maire yoo xam ne dañoo nangu sax ay société civile ñëw audité leen ci leen pour ñu xool ba xam ndax ni mu nekkee baax na ak yooyu par exemple boo jëlee région Louga foofu boobu nga doon wax noonu soo jëlee région Louga boo ñëwee biir commune Louga actuellement am na benn programme bu naan PACASEN ñoom xam naa certainement waa yëmbal yooyu am na ci. mooy programme PACASEN boobu dañoo jëloon lu mat 122 maires yi pour ñu ñu xool ba xam nan la ñuy doxalee wàllu performance seen maires maanaam projet yeeg chantier yeeg yenn réalisation yi ndax dox bi. dana jaar yoon bu leen joxe ay moyens biñ classé ay yëmbal yi am nañ position yu baax maire yu Louga boobu mu la doon wax troisième position la jël par rapport ak cent cent vingt deux maire bi nga xam ne si Moustapha Diop bu Louga moo ko jiite ñu ñoom performance dañ cee xarañ parce que ni ñuy liggéey ak projet yi ni ñu ko yore dafa jaar yoon ñu audité leen am beneen maire yi aussi boo xam ne si aussi dans le cadre du forum civil mooy a Géewul boo jël Géegee Kébémer avant Kébémer boo jëmee Louga am na maire bu naan Géewul aussi le maire dañoo gis ne moom day jël ay moyens ay xaalisu boppam ay 60 millions ay 50 millions ay projet di ko fa teg yoo xam ne xaalisu boppam lay doon bu bokkut ak budget maire kon ñooñu ay exemple lañ joxe kon ñooñu bu ñu ñëwee ne leen léegi désormais ku ñu fal maire dañ naan diw na ni fal Mor Fall wala Baara Nangam moo ne ci liste Nangam diw diw léegi population bi danañ xam diw ak diw kan kan moo ci gën a jub danañ dem ba xam loolu sax ñoom seen biir parce que ay dëkkandoo bu ñu waxantuwul dëgg ku nekk xam na sa morom xam na ku nekk ku jub. ak ku jubul ku dëng ku am yéene ci askan wi yooyu yëpp dañ koy xam critères yooyu nag nañ bëgg population bi xam ko ñu bañ leen cee nax kon développement local dafa nekk loo xam ne lu nit ñi war a xam la war a xam ne mbir mi du parparloo mbir mu du kii fi la bokk kii bokkul fii bu bokkoon fee mu voteel ko loolu amatul jeex na parce que li tax li ko jeexal mooy ki Sall ci boppam moo ne nit ñi askan wi nañ leen bàyyi ñuy fal nit ñi bëgg yoonu fii ma nit ñi ko koy dugal ci ay élection mais yoonum ci ba mu ne ku ci nekk nan xam kan mooy kii kan mooy kaa bu nit ñi xëccoo léegi nan jiital kuñ jiital na nit ñi xam kan la ñu woteel kooku bu ñu demee jiital koo xam ne baaxut même bu fekkee sax moo diw ñoo doon yenn ñoo doon fanaan askan wi dañ koy sanctionné. donc loolu c' est très clair il faut nit ñi xam ko mu leer. déjà xam nga ci développement local li nga doon expliqué soo xoolee fu mel ne boo jëlee côté Matam jàpp noonu population yi ne foofu ñoom dañoo xam teel a xam développement local. xam askan wi ne foofu association yeeg moodu moodu yi ñuy tukki ñu ci bari ñooy financé d'ailleurs ci si yenn projets yi ne ci seen localité yi mais nit ñi am na si citoyen yoo xam na aussi ñoom dañoo jàpp ne état moo war a développer ab gox alors que loolu parce que le développement d'abord c'est c'est la base ci suuf la ci suuf la mbir yi jóge jëm ci kaw mais du jóge ci kaw jëm ci suuf parce que loolu il faut ñu ñu comprendre. du ñàkk nañ ci ñëwaat euh, ñu kii euh, ki nga xamante moom mooy euh, Abdoulaye Sagna moom yàgg na ci li nga xamante ni moom mooy wàllu localité ci wàllu liggéey ci wàllu maire bi depuis 2014 mi ngi ci nekk ki nga xamante ni mooy directeur cabinet bu maire Bara Gaye donc ak naka ngeen di doxale li nga xamante ni mooy wàllu développement local parce que à chaque fois dañ naan mairie démembrement état la Euh, parce que ñoom moom ñoom ak président ñoom ñoo yem nañu ne kii ku ci nekk euh, dañ laa dañ laa fal askan wi la fal yow yaa war a mën dox ngir mën a euh, développer sa gox aka naka yéen naka ngeen di dundee li nga xam ne mooy wàllu développement local depuis ba ñu instauré wàllu acte trois de la décentralisation. ñaan bala may ci question rek def nañ koy baaxoo ci ci réew mi. Mm-hmm. di masaw ñi nga xam ne bii ñoom ñoo fi wàññeekoo suñu kilifa yu baax yi. Mm-hmm. ma ci jiital Serigne Cheikh Jëmu Fall xalif général des Layènes. des des des des Baye Fall mm. waaye tamit euh, di ko jaal représentant bi nekk yëmbal mm. di maam Cheikh Fall mm-hmm. euh, sëriñ maam Cheikh Fall di ko ko jaal di ko jaal Baye Fall yëpp di ko mm. jaal mboolem murit ak mboolem jullit naka noonu aussi di jaal euh, sëriñ Abdourahmane Mbacke fi bàyyee ko barki démboo Ndiaye ñu denc ko démb ci Touba ñu koy jaal mboolem murit ak ak askanu ak jullit yëpp waaye tamit di jaal ABC bi fi jógee yàggul dara waaye tamit axlu làmb jooy nañu euh, génn àdduna mbay mbay gay d'abord ah, ensuite euh, ensuite dubalees bi nga xam ne bii denc nañ ko démb te yoof mm. mu doon ay tiis ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne wàcc na ci réew mi mm. donc ñu ngi koy jaal sénégalais yëpp di ko jaal jullit ñi di ko jaal àddina mm. bu loolu weesoo ñu ngi sant suñu borom bu baax a baax ci li mu ñu génnee ci deuxième ci troisième vague bu mbas mi parce que médecins yi officiellement décrété nañu ni génn ci troisième vague loolu ndimbalu suñu borom la ak góorgóorlu bi nga xam ne bii bi ñu ko bi ko médecin yi laajee askan bi askan bi takk nañu seen ndigg jéem a ah, fagaru ci mesure barrière yi ba yàlla dimbali ñu génn ci troisième vague bi ñu ngi ñaan suñu borom mu yem fi suñu borom dimbali ñu ba ba ñu tàggoo définitivement ak mbas waaye tekkiwul ni jóge na fi mu ngi fi ba léegi ñu ngi soññaat askan bi ñu gën a defaraat taxawaay yi gën a takk masque yi respecter lee mesures barrières ngir ñu tàggoo jàngoro ji nga xam ni li muy lor bakkan moo ci gën a tuuti li ñu lor ci suñu yëngu-yëngu ci économie ci wàllu activité moo ëpp fuuf sax donc loolu dañ koy sante suñu borom bu baax a baax di ñaan mu dolli ñu ci alors bu may ñëw ci sa laaj ci wàllu acte trois la décentralisation dafa nekk ci wàllu politique de décentralisation te décentralisation dafa nekk processus boo xam ne bi processus irréversible la processus boo xam ne si érigé en modèle de gouvernance universelle adduna bi yëpp ci modèle de gouvernance boobu la ñu tendre boo gisee ñu ne acte trois c'est parce que acte un amoon na acte deux am acte trois am te chaque acte dafay ñëw dolli pouvoir les collectivités locales maanaam ñi nga xam ne moom euh, moo ñoom ñooy la gestion à la base. li ko waral mooy état du Sénégal wala état yépp lii seen wareef mooy ñu taxaw ci jafe-jafe askan bi ñuy liggéeyal askan bi waaye askan bi kenn gënu leen xam seen jafe-jafe bopp ndax jafe-jafe yi nekk yëmbal. wute naag jafe-jafe yu nekk mm. Wurosogi mm. wute naag jafe-jafe yu nekk Bignona mm. wute naag jafe-jafe yu nekk Saint-Louis loolu moom moo waral état central dafay jéem a fexe ba diisoo ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk à la base kenn ku nekk mu dénk la cof ci ci ci ay sañ-sañam ko ña ña ko yor ci suuf ñu mën koo gérer seen bopp ndax nag loo xam-xam nit ki mu gën laa xam boppam kon ci tënk état d'esprit wër décentralisation loolu la donc au finish état yëpp dañuy jëm ba les pouvoirs ñu jox ko les collectivités territoriales boo demee ci réew mu mel ni Allemagne dañoo décentraliser ba décentraliser lu mel ni ek éducation mm. les Länder maanaam moom mooy les régions mm. dañu am seen politique éducative bu wuteeg beneen région mm. ndax gis nañu ni culture casamançaise par exemple ak seen i référentiel wuute na ak waa saint li wuute na ak waa Jigé euh, ak waa Louga wala wala feneen fu mënti doon dem nañu ba pousser ci côté boobu donc euh, li nga xam ne nag mënuñu koo séddoo. Mm. loolu mooy des ci loxo état central muy sécurité nationale muy politique internationale. Mm. muy euh, la défense nationale ak lu jëm ci wàllu transport loolu benn état benn collectivité locale munu koo yorul boppam. Mm. kon loolu loolu rek moo war a des ci loxo état. kon Sénégal bu ñu defee jéego ba egsi ci acte trois la décentralisation lu baax la te acte yi dafa war a continuer ba acte quatre acte cinq parce que le maximum de pouvoir doit revenir. aux collectivités locales ndax ñu gérer seen bopp. jafe-jafe yi am yëmbal doomu yëmbal ñoo ko gën a xam président i Sall. kon bu ñu leen joxee sañ-sañ bi ba pare jox leen moyens yi ala kulli al ñoo ko war a gën a mën a fajal seen bopp dañ ñëw ci ay exemple ci kanam. donc pour dire que ni acte trois en soi lu baax la mënuñu ko jeter avec euh, avec avec l'eau du bain mooy li ñu wax nii jeter le bébé et l'eau du bain. mais dañ ko war a dañ ko war a saytuwaat dañ ko war a xoolaat bu baax a baax parce que ci première phase nekkoon laaj nañu évaluer première phase bi. mën a dugg ci deuxième phase bi te collectivité locale yëpp yu ñuy jooy te ma nekk au cœur euh, euh, euh, des collectivités locales bokk na ci moyen yi ñu war a transférer àndu ci parce que bu ñu la joxee compétence te joxuñu la moyens yoo ko doxalee dafay sooxe à la kulli xëy na nag ñu ci bari dañ naan compétence yi war amul ci au niveau local mais loolu dañ ci war a dañ ko war a organiser organisation la laaj pour nit ñi jox moyen collectivité territoriale yi ci suuf beneen bi ci topp mooy dafa am ba léegi ay conflit de compétence entre les différentes collectivités mm. les communes anciennement appelées commune d'arrondissement ak les communes villes les les villes dafa am ay compétence yu ñu bokk boo tax na dañuy mbëkkante des fois ci yenn exécution projet yi ak yenn prérogatives yi nga xam ne kenn ku nekk jàpp na ni yaa ko moom mm-hmm. mm-hmm. am na les mêmes compétences loolu dañ a tranché mais da nga fay gis ci li nga xamante ne moom mooy mairie mu mel ne euh, ci li nga xamante ne moom mooy domaine de compétence yi nga xam ne dañ leen koy ne yéen ko moom mu mel ne parce day am jafe-jafe ci ngir ñu mën a exécuter yenn yenn projets yi donc le problème c'est ndax état bi moom moom moom bañ a joxe li nga xamante ni moom mooy euh, les moyens wala boog euh, compétence yi nga xamante ne wax ne nit ki bu demee uti ji ay ay ay projet am ñëw ñu ne à chaque fois mu jaaraat ci li nga xamante ne mooy bi est-ce que forcément loolu dafa war a am wala juste euh, li dañoo war a andiwaat yeneen yeneen actes yoo xamante ne moom mooy mooy tax nit ki euh, mën na mën demal boppam sans autant muy xaar état bi non de xam nga acte trois de la décentralisation mi ngi ci wàllu décentralisation décentralisation bi mooy ñu fexe ba collectivité local bi autonom mm-hmm. di mën a doxal boppam te du yaakaar beneen moroomu collectivité locale am. Mm-hmm. te sax xëy na du yaakaar du dépendre du wéeru carrément ci état. Mm-hmm. ndax bu wéeroo carrément ci état mën na am ay sooxe donc loolu moom mooy esprit bi. maintenant li war ci wàllu collectivité territoriale te ñun suñu exemple wane ko mooy créativité kese mooy def la différence. parce que boo xoolee commune bu toll nii commune de Yeumbeul Sud commune bu bu bu weesuwul 3 kilomètres carrés la matul sax 3 amul marché. donc amul recette bi war a mën a tax. Mm. Euh, yëmbal sud moom boppam. Mm. donc bu ñu dee xool ci critère yëpp. Mm. critère géographique. critère démographique kese moom moo moom moo remplir. parce que li fay yeewu ci askan toll nañ ci cent vingt mille habitants plus de cent mille habitants kon loolu. jaadu nañu am collectivité mais du critère économique du du wàllu activité du dara. mais tey comme saa nu mu ko waxee. Bara bokk na ci les meilleurs maire du Sénégal bëri na ay prix yu ñu ko jox yoo xam ne dañ ko ràññee ci wàllu liggéeyam en de réalisation. y compris ay mbir yoo xam ne bii. laajuñu ko woon sax collectivité locale compétence état central la waroon. Hmm. mais loolu loolu ingéniosité la laaj. kon ñi nga xam ne ñoo nekk les les maires wala ñu nekk ci collectivité locale dañu war a am créativité bu leen mën a may ñu combler les déficits yi nga xam ne bii hmm. moom. le collectivité le code des collectivités locales teg muy ay confusion de compétences. Hmm. au ngay nekk di xëccoo ak ville di xëccoo ak état mais amal créativité d' autant plus que code ak ak trois de la décentralisation may na mairie ñu nekk euh, ñu am compétence euh, euh, de la coopération décentralisée la coopération internationale loolu day dalay ubbil ay bunt nga mën a génn moo xam commune yu nekk ci biir réew mi wala commune yu nekk bitim réew nga dem contracté ñoom moo xam ay partenaires privés ay partenaire publics pour ñëw indi développer sa collectivité donc ñun suñu salu bu ëpp solo en tant que commune bokk na ci coopération décentralisée boobu donc conflit de compétence yi dem na sax entre les communes et le représentant de l'État c'est-à-dire euh, les les les pouvoirs déconcentrés de l'État mm-hmm. exemple bi ma la ciy jox mooy mesure bi nga xam ne gouverneur mujj na ko jël ne désormais les préfets et les sous-préfets war nañu délivrer ay certificats de résidence mm-hmm. loolu compétence exclusive la des maire mm-hmm. loolu léegi est-ce que compétence centrale wala compétence collectivité territoriale donc il y a yoo xam ne jàpp nañu code des collectivités territoriales dañ ko war a xoolaat évaluer ak dans la pour mën a permettre communes yi ñu am jumtuwaay yu mën a war carrément pour mën a jànkoon ak jafe-jafe askan parce que nag problème euh, askan yi les maires ñoom ñoo ko gën a xam tey jii dama lay jox benn incohérence aussi lu toll ci mbënd bi inondation yi di massawu encore une fois ñi nga xam ne ñoom ñoo ci loru euh, fukki at yi nga xam ni normalement waroon nañu tey nekk ci ñoom waxtaan gi parce que ñu ngi ñu ngi ci programme décennal boo xam ne bii 2012 la commencé woon. war a terminer 2022. Hmm. on est en 2021 ba léegi ñu ngi ci ay ay stratégie d'urgence ay ay ay plan Orsec. Hmm. donc c'est un problème. Hmm. mais boo dee xool population yi bu ñu inondé du ñu dem pale du ñu dem gouvernance ca maire ba lañ jëm alors que ces compétences là ne sont pas ne sont pas données au maire. maire nu muy def munu leen a dàq mënu leen a luy sama compétence da ciy jéem kéem tolluwaay kàttanam tout en amul moyen wu régler bi parce que yooyu. ay ay super infrastructure moom moo koy réglé. Mm. du ay moto pompe yi nga xam moom la ñuy def wala envoyé leen ay carburant wala ñu envoyé leen mm. ay flexible wala ñu yónnee leen ay ay ay camion hydrocureur réglé wu ko loolu c' est des c' est des yoo xam ni mm. lu ñuy def la pour ndox mi jóge fi waaye déwén day ñëwaat li koy mën a teree ñëwaat déwén nag loolu ay investissement lourd la te état moo ko yor ah. investissement yooyu bu ko état joxoon collectivité territoriale yi non nga xam ne collectivité territoriale am nañu xam-xam ak xarañte régler problème inondation yi parce que liñ ciy daj te amuñu moyen te am ci résultat que ne as néew bi nga xam ne mën nañ cee dut baaraam wane na ni buñ leen joxoon les moyens qu'il faut kon tey jii collectivité territoriale yi dinañ am jéego yu rëy yu ñu ci wàllu ci wàllu inondation mm-hmm. donc pour dire euh, acte trois de la décentralisation lu baax la parce que dafa méngoo gis-gisu àdduna ci wàllu gouvernance dañu war a dem ci décentralisation mm-hmm. waaye war nañ koo xayma ba collectivités territoriales yi compétence yi ñu leen dénk maanaam sañ-sañ yi ñu leen jox ñu jox leen alal yu ñu toll pour ñu mën koo régler ba askan bi bu ñu yaakaaree ci ñoom ci problème yi ñu am ñu mën koo régler mm-hmm. beneen bi ci topp compétence yi nga xam ne dañu koo bokk ak ville yi bokk ko ak les pouvoirs ak les préfets et les sous-préfets ñu xool nuñ ko disséquer ba kenn ku nekk xam li la war donc loolu daal vraiment jàpp naa ni évaluation la laaj euh, lu jëm ci wàllu politique parce que décentralisation modèle de gouvernance universelle mais est-ce que euh, euh, la ñuy wax les les compétences transférées parce que da nga faral seen ci waxu mairie yi à chaque fois ñu ne loolu ci compétence transférée la bokk ñu di bokk ci compétence transférée donc est-ce que mën nga defal juste benn liste nañu lii lii compétence transférée lii compétence la boo xamante ni nekkul euh, bu mairie kii comme mairie ville la yan yan yan. Euh, waaw compétence transférée neuf demaine de compétence la. Hmm. yoo xam ne boo koy résumé rek da ngay xool lépp loo xam ni ay jafe-jafe la yoo xam ne mu ngi ci biir quartier bi wala boog mu ngi ci biir commune bi te ñu mën ko saafaraa ci biir commune te bokkuñu kook beneen commune loolu compétence boobu mën nañu koo jébbal collectivité territoriale damay jox exemple xam nga lu mel ni euh, voie ferrée wala tali hmm. def compétence transférée parce que commune bu am alal loolu mën na defal ay tali yu mucc ayib te commune ba ca topp amul alal amul moyen est-ce que da ngay daw ci tali deux fois deux voies ñëw ba fi dugg ci rang-rang dem beneen commune bu am moyen am ay tali yu mucc ayib donc loo xam ne le transversal la mm. état bi da koy gérer boppam mm. sécurité sécurité national défence nationale loolu état bi moom moo koy gérer de sensible euh, la la politique étrangère mooy ministre des affaires étrangères loolu c'est des questions de souveraineté de souveraineté ah, les questions transversales yi nga xam ne bu ñu ko dénkee kenn moom kese moomu ko comme inondation li tax décentraliser wuñ ko aussi mën nañ ko comprendre parce que ndox xamul frontière hmm. mën na di taw taw bu bari bari sama commune te sama commune nekk pant ndox ma yëpp dem ci beneen commune ah. mais man du ma dem ci commune jàmbur di gérer ji ndox boobu donc il faut que état bi nga xam ne bi moom moo ëmb commune yëpp nag di gérer loo xam day jóge fii wal ba fële te fekk ni lu ci mel ni électrification lu ci mel ni euh, euh, adduction d'eau potable yooyu état la mais nag lu jëm ci ay ay jeunesse ay loisirs ay sport ay santé ay éducation même éducation bi dañ ko def ay pàcc éducation de base ak euh, école élémentaire yooyu mairie ñoo ko yor mais lu jëm ci collège ak lycée conseil euh, départemental état conseil départemental ak état ñoom ñoo koy gérer mmh. université moom domaine exclusif exclusivement réservé à l' donc même boo dee xool rek ci saytu domaine bu la wax rek mën nga xool dayoom nu mu toll ndax lii mën nañ koo yemale ci commune mmh. commune bu moom moom moom yooyu compétence mmh. donc yu mel ni ay sport ay loisir mooy yu ma la wax donc bëri vraiment ay domaines yoo xam ne bii ay domaine de compétence la loolu tamit contradiction la assainissement dafa bokk ci domaine de compétence yu ñu transféré mais assainissement collectivité locale yi amul benn moyen bu ñu transféré pour ñu mën a assainir parce que kii di assainissement di canalisation canalisation superstructure la yoo xam ni collectivité locale mënuñu ko def ça coûte cher ça coûte cher non seulement mais canalisation mënoo ko def à l'échelle communale canalisation dafay dafay dafay transversale day jóge ci commune bi ndox yi dugg ci beneen commune transversé dem yu mel noonu nag état moo ko gérer boppam en terme pratique

que dañ wax ne toutes les toutes les mairies se se valent mais euh, au moins yéen ñi nga xamante ni yéen a xaw a jege fi nga xamante moom mooy ay région de Louga gestion wu mairie foofu est ce que du moom moom la euh, population bi soxla mais le reste en terme d' en terme de lii presque duñ ko gis yenn ci région parce que j'ai eu à à faire Louga mais euh, pour nga gis yenn infrastructure yi nga xamante ni koy gis Dakar lu mel ay pavage yenn yenn yenn projet yu promoville ju ni mel du ñu ko fa la gis ci région yi ndax euh, dafa nekkul euh, loo xamante ni dafa bokk ci si projet wu mairie yu nekk ci région yi la wala boog dafa nekk juste loo xamante ni seen ay mairie amuñu compétence yu def loolu non xam nga il faut nga comprendre sa waay wax na ko sànq xam nga développement local toujours bees ko day wax il faut ñu mettre des hommes une ressource humaine de qualité ci collectivité locale yi boo jëlee fu mel ne région Louga nga xam na trois départements la euh, département yooyu am naa sansu euh, communes yooyu ne ci trois départements yi presque mu vérifier ma dem ci biir commune yëpp que ce soit biir Linguère Daara Jolof Louga Kébémer Géoul Ndande Cepp Bandeñ euh, bon yaa naa bari na waaw commune yi ne foofu yëpp mais li ma remarqué mooy certes askan wi am nañ ay problème mais xam nga tey fii ma doo dégg mukk fu mel ni Louga ñu ne dëkk ba taana am na ñu génn seen i kër loolu moom bis bu amee mooy wan na Dakar moom kenn waxtu li waxam booba parce que bon nappe phréatique bi bokkul ak nap bi am fii parce que fii bari na ci zones yoo xam ne c'est des zones agricole là aussi aussi foofu laa bëgg alerter toujours aussi autorités yi parfois euh, les service techniques ñoom rôle bi ñu war a jouer duñ ko def parce que dagg nit nit jënd kër nga jox ko autorisation de construire te leer na ne yow fi ñu construire baaxul jeune agricole la foo xam ne euh, dañ ko war a ñu ji il suffit ko mu taw rek mu taa parce que quelques kilomètres quelques millimètres rek su ko tawee mu taa ko te Louga nekk nekk na foo xam ne suuf si suuf boo xam ne dafa nooy bu tawee euh, même bu fuutaa bala moo mat 30 minutes wala 20 minutes ndox mi demul yoonam donc te teewul ñoom am na ci euh, bénéficier wu nañ ci ay projet état yu mel ne ay Promoville ay PUDC yeneen dëkk yi parce que PUDC dans le monde rural dañu intervenir mm. même Promoville Promoville rural day am Promoville parce que ci yenn dëkk ville yi la doon kii capital régional yeeg ak yenn dëkk yi nga xam ne commune yi nga xam ne am yenn population yi nan waxoon ne mooy critère yi ni éligible pour nga mën a bénéficier Promoville mais état bi mi ngi koy élargir c'est comme le PACASEN aussi ñu ngi koy bëgg yóbbu ko ci dëkk dëkk yu sori yi commune communauté rurale yi nekkoon commune léegi yaa ngi dégg loolu c'est une mesure la aussi bu rafet parce que du woon du woon yoon rek ñu ne ñii ñoo war a bénéficier ñii waruñu woon bénéficier d'autant que loolu lu baax la loo lu am njariñ la ci askan wi donc ma rebondir daal toujours ci question ci li nga wax boo jëlee fu mel ne Louga foo xam ne seen budget yi amoon au début il y a de cela dix ans ci ginnaaw wala cinq ans ci ginnaaw seen budget yi mënuloon a dépasser ay ay quatre cent millions actuellement ñoom ñu ngi ci ay 1 milliard jëm kaw donc cela signifie que lan moo waral loolu parce que tout simplement njiit ya fa nekk man loolu laa remarqué parce que budget commune bu dee bu dee bu dee yokk c' est parce que il y a une ambition soit ñoom ñi ngay créer ay ressources gis foo xam ne si xëy na ne gis nañ ne fii bu ñu ko defee nii xay na ñu mën ci am ressource ressources yooyu bu ñu ko gisee dañ koy jéem a fexe def ko ci askan wi ba pare aussi xam nga li tax wut maire doy waar xam nga instant bi yaa ngi dégg ay déclaration de candidature bari ci réew mi mais a quatre-vingt-dix pour cent ñu ci bëri leer na leen ne ñoom mënuñoo def dara ci seen maire même bu leen ko joxee sax maire ba du dem waaye dinañ xëccoo parce que dañ naan naa ko yor su ma ko yoree xëy na budget bi danaa ci mën a def lii dinaa ci mën a def lii alors ko se pas sa waay mi wax na la ko gis nga maire xam nga lu ko yor lu ko lu yor maire ay moyens moo ko yore maire ba nga day yor xaalisam da nga ko ca wala soit moo am ay partenaire te partenaire yooyu pour nga am ko tamit tu ne dois pas être n'importe qui parce que tey yow soo demee di leb teew mu leer na boo leen bu la lebalee amoo amoo garantie lan moo tax mairie da mairie Dakar bi ñu ñu ñu ne fi di di di coow mairie Dakar est-ce que xam nga avec l'acte 3 mairie Dakar actuellement soow bu amul niw la xam nga soow bu amul niw mooy lan mooy soow moo xam si ne maanaam amatul boo ko naanee dan nga koy naan comme naanu ndox parce que commune d' arrondissement yi waroon ñoom ñoom ñoo doon alimenté budget mairie Dakar te arbitrage budgétaire amatul du mairie Dakar moo naan budget nangam budget mairie nangam dama ci jël nangam mairie yooyu ñoom ñooy xool seen budget nam leen neexe al nañ ko gisee ñu ne mairie Dakar léegi compal nañ leen ci jox nañ leen ci lii beneen bi mooy emprunt la loolu mairie Dakar doon def emprunt emprunt sur le marché léegi xam nga kan moo doon ko garantir le ministre des finances ministre des finances boobu mooy xool mais Dakar ne leen est-ce que yéen am ngeen ay ay garantie yu woon ne bu buñ leen lebalee dangeen mën a fay loolu pouvoir discrétionnaire la su leen neexee ne leen li ngeen ma présenté wóoluwuma ko léegi bloqué naa moo dégg moo taxoon nga déggoon fi emprunt bu mairie Dakar defoon mu am problème xam nga déggoon nga ko fi déet loolu problème la te xaalis boobu nañ doon jël pour mën cee defar ngan di infrastructure comme ni ko kii waxee boo dikkitee toujours li nga wax ci côté maire yi Louga yaag ay géewul ak yaa ngi dégg maire yooyu noonu dañoo am ay maire yoo xam ne dañoo am ay moyen c'est-à-dire fa nekk avant ñuy arrivé am na ay poste de responsabilité wala ñoom ay moyens yoo xam ne tey su leen benn partenaire laajee ne leen damaa bëgg a def ab centre de santé il faut ngeen maire bi am acompte il faut mu am contribution bi maire bi fay 60 millions maire bi mën na génne xaalis su contribution bi xam nga ko budget budget day prévoir. parce que ki xam na luy budget. budget lu mu prévoir lu mënoo koo def. mais sa problème mooy Louga ak li mu am si ay si ay ay ay profil Louga moo ëpp ay si si Sénégal si on peut le dire. mais mënuñoo fexe ba Louga développé alors que dañoo ne dañoo ne en terme développement local on dit que ñoo ñëpp si lañ part à euh, yi ñëw international yeeg yu ni mel. ñi nga xamante ne peut-être que mën nañu wax ne ay ay ay ay partenaires euh, particuliers la ñuy nekk. Ah. peut-être ñoom mën nañoo si loolu. est-ce que la moo tax lu ko mënul développer alors que. non non xam nga ñoo jël nit ñooñu leen. woo ñu investir xam nga nit ñi dafa am lu ñuy fàtte. xam nga développement c'est comme la décentralisation. Mm-hmm. c'est un processus. c'est un processus kuy wax processus li naan ci olof pour mu leer la ndar xëyul ñu construire ko ci benn benn pont ndar bee. Mm-hmm. xëy ñu ko ci benn jour. processus développement la. c'est un processus cest à soo xoolee da naan da naan dëkk bi wàllu éclairage fan na nekkoon ndax fii lëndëmoon na ñaata lampe moo fi newoon léegi ñaata lampe moo fi nekk bu dee wàllu tali la ñaata tali moo fi newoon yàqu su fekkee fukki tali la est-ce que def entre temps defalaat nañ fa lu mat quatre tali wala cinq tali. loolu attends attends attends waaw foofu laay bëgg di dikk su fekkee wàllu infrastructure sanitaire la su fekkee dañoo amoon benn poste de santé. est-ce que am amaat na trois post de santé su fekkee dañoo amoon benn ESAT est-ce que amaat nañ beneen ESAT yaa ngi dégg su fekkoon amoon nañ benn lycée ndax amaat nañ trois lycée su fekkoon amoon na nangam école élémentaire nangam loolu loolu ngay mesurer performance bu dëkk te ci kaw loolu déggoo mu wax la ko fi sànq troisième classement ci parmi les cent vingt deux collectivités locales moom la Louga classé wu 122. je dis bien moom la waaw en terme de en de de résultat performance wala en terme de politique. mais mais mais attends en terme de performance loolu waxuma ko. Mm. loolu Cour des comptes moo ko wax. moo génne benn rapport ndax li mu dugal xaalis ne commune Louga. Mm-hmm. en terme de performance mm-hmm. ay projet ak i chantier li ci commune Louga def. Mm-hmm. ci diggante lu mutul fukki at jéggi na day wa ñoom ñoo ko wax waxaluma ko seen bopp. te man loolu suñu àndoon ma woon la ko mën naa cee dut baaraam. soo xoolee ci wàllu làmp man mii wax ak yow bi may jàng bi may bi ma nekkee xale di jàng Louga xam nga yan làmp moo fa ñëwoon poto yi nga xam ne si kii la woon ban tuuti bant la woon léegi poto bant pour nga gisati ko Louga sax problème la kon am na fu am na jéego yu am foofu beneen bi mooy euh, benn lycée man laa fa laa laa fa xamoon muy lycée Malick Sall fa laa jàngee fa laa amee bac en 2005 mm-hmm. au moins amaat na yeneen lycée centre de santé hôpital hôpital régional amul Sahel Mbaye moo fa amoon mm. am na ay centre de santé léegi au moins deux yu bees mm. yoo xam ne ci quartier périphérique yi sax nañ ko def mm. parce que ñooñu ñoo gënoon a am problème parce que boo boo jógee quartier périphérique dox lu mat kilomètres doo ko jot ci hôpital régional léegi da ngay génn sa kër dem ci centre de santé ba faju ci kon loolu avancement la beneen bi mooy ah waaw attends attends je vais venir xam nga tamit il faut nga da nga am budget boo yore day am loo man am loo wuti am loo amut garage boobu ngay wax bi ñu ko doon defar presque 15 ans garage ba dem meloon la mel xaar xaar ma xaar ma actuellement bu yàggul la maire ba ñëw woo ña nekk ca garage ba chauffeur regroupement des chauffeurs woo leen ne leen seen garage bii ni mu mel parce que ñoom tamit dañoo am seen autonomie mhm. parce que ak groupement ay chauffeur la mënoo ñëw rek xëy ne nangam nang leen a woo tey ñoom ne leen seen i doléance indil leen ma ko ñu teg seen i doléance mu ne leen lii laa ci mën a defagum pour l'instant boo xoolee garage Louga boo dugg see pour l'instant te d'ailleurs sax pavage bii nga doon wax premier maire bi nga xam ne moo ko jëkk a ay pavage ci xam nga kan la Moustapha Diop bii nga doon wax actuellement boo demee unité de production de pavage am ñu ngi ko mettre en place bi nga xam ne garage bi dañ cee war a am ñoom garage Louga déjà seen boo duggee seen bunt bi fi regroupement bi amuñu woon sax bureau boo xam ne si maire bi bu ñu ko gisee dafa ñëw daal di teg ay moyen dëkk leen a defaral ab kii nu mu tuddati euh, bureau bu mag boo xam ne si pour les l'instant man nañ faa ne en attendant pour ñu defar kii bi nu mu tuddati defar pavage beeg yooyu parce que situation bi ni mu nekkee woon c'est pas normal moom dafa xam loolu moo tax ñoom bañ koy fal dañ leen woon man du ma fi defi promesse parce que il faut éviter des promesses danaa fexe ba bu luy nekkoon ci 10 mu dem 60 te man loolu laa gëm man man buñ gëmuma promesse Abdoulaye Wade mas na ko fi promesse ñoo ko gëm ñoo ñoo ko gëm xam nga je salue le courage de Abdoulaye Wade li mu waxoon ne promesse ñi ko gëm ñoo ko gëm moytu nan moytu promesse yi parce que tamit wax ay nit wax leen wax a wax bañ leen a wax def moo gën man loolu laa gëm te damaa gëm ne lii ma la wax nii du dul deñ Louga ins moment bii nii bokk na ci dëkk yi nga xam ne si dañoo leer nañ nañ nañ bokk na ci dëkk yi nga xam ne ak budget ba mu yore budget boo xam ne si un milliard la tollool nga fexe ba indi fa ay investissement yoo xam ne boo ko doon calcul ëpp dix milliards loolu ko loolu ko amul ambition doo ko def. soyons juste et raisonnable maintenant volet bi nga xam ne si nag mooy problème mu maire yu bari te ñu ñu ci ñu ci attaqué maire yi du yoon xam nga maire lu mu mën kii xam na li ma koy wax ci maire la nekk. Ah, moo tax maire rôlam maire rôlam du recruter ay nit à part personnel ba nekk ca maire ba kii xam na li may wax parce que yu ñu ay moyens yu ñu recruter ay nit ak personnel maintenant mën nga créer ay conditions créer benn environnement aussi. pour faciliter la politique de l'emploi te loolu mair yu bari ki xam na li may wax seen maire yi ma ngi ciy liggéey maire yu Louga aussi boo demee ma ngay def ay manœuvre am fexe euh, santé mu fay recruter fexe euh, lu mel ne wàllu IC kii euh, industrie industrie mu fexe ba góorgóorlu ay jeunes di am foofu ay postes de responsabilité te pourtant loolu du woon rôle premier maire parce que xam ne lan mooy rôle maire na fexe ba dëkk bi leer na fexe ba xale yi am fu ñuy centre de santé yi centre de culturel yi ngay wax centre culturel yi ngay wax Louga boo demee actuellement en face mairie Louga centre centre centre nekk foofu multifonctionnel la te man bi may xale dama daa dox nii gis ay bëy di taxawaal yooyu mais Moustapha Diop ba mu ñëwee dafa dindi loolu fexe ba def fa un centre multifonctionnel ba nga xam ne boo fa moon yow tey boo toogee foofu mën nga fa boobu waru nelaw jotee sax mën nga nelaw mm. parce que da kaa defar c'est ça man loolu laa gëm dinañ ci ñëwaat incha allah dinañ ci ñëwaat ah, donc euh, dañuy ñëw ci ci ki nga xamante ne mooy euh, liggéeyu ki ba wax na wax liggéeyu maire yi donc fi nga xamante ne moom mooy yëmbal jamono ji mel ne euh, nit ñi li ñuy wax à chaque fois ci réseaux sociaux yi moom mooy bilan Bara Gaye bilan Bara Gaye bilan Bara Gaye am na ay coow yu jotoon am ci euh, liggéey yoo xamante defoon na ko fee jëmale ko ci euh, extension wu école euh, ci li nga xamante ne moom mooy poste de police bi nga xamante ne def na ko foofu on disait que à chaque ni Bara Gaye n'a rien fait c'est juste li nga xamante ni moom mooy état ay wax ci li nga xamante ni moom mooy poste boobu naka lañ ko financé mais boobu ba léegi nit ñi mënuñoo am lu leer ci li jëm ci wàllu extension école Madi Ndiaye boobu ci construction wu poste de santé bi ak li nga xamante moom mooy centre commercial bi ñuy def aussi stade bi est-ce que mën nga ñëwaat tuuti ci li nga xamante ni moom mooy euh, quel est quel est le problème à chaque fois les gens demandent un bilan naan Bara Gaye dafa war def bilan nangul def bilan nangul def li nga xamante ni moom mooy débat wax ci euh, gestion maire bi donc c'est c'est quoi le problème à à Sud. Ah, Yeumbeul Sud amul amul problème hmm. jàpp naa ni nit ñi la yëmbal waa hmm. xam nañu ni lépp lu fa am ci réalisation Bara Gaye fa def amul benn réalisation boo xam ni état du Sénégal dugal na fa ñaar dërëm amul. c'est quoi le problème c'est quoi parce que. waaw mais non c'est pas loolu c'est pas des propos yoo xam ne dafa jóge ci askan bi mais dafa jóge ci ay adversaires politiques parce que nekk nañ fa nag pendant sept ans nekk parti au pouvoir représenter le président de la république te état du Sénégal dafa fa dara. am nañu gàcce jàkkaarloog askan bi ne ñun suñu président bi ñuy liggéeyal 2012 ba léegi deful yëmbal dara loolu nag pour ñu répondre ci loolu dañuy wëlbatiku ni baaragay lii mu def nii kat ah oto daw de pono bi président moo ko def. wala euh, dispensaire bi mu tabax wala euh, poste de santé bi piqûre ca ne président moo ko fa indi wala coton ya mm-hmm. loolu la du leneen mais lépp lu fa am comme infrastructure vraiment loolu méritu conseil municipal bi la avec à sa le maire Bara Gaye mm-hmm. leneen lu ci am ci polémique rek dafay jóge ci ci ci adversaires yi leneen si mooy bu ñu yàkkamte dañuy defar ñun suñu livre bilan mm-hmm. livre bilan bi sax pare na waroon a génn bu yàgg yàlla dafa dogal Bara Gaye entamé ay ay ay chancer ndax wax dëgg yàlla ku ko xam xam ne 2014 ba léegi euh, lu ñu koy askanale mooy réalisation ci moom lañu ñu xamee ni ndekete les communes am nañu possibilité réaliser ay infrastructures rawatina commune bi mel ni Yeumbeul Sud boo demee fu mel ni Afia Afia du état du Sénégal du commune moo fa mës a defar benn infrastructure la moindre infrastructure mosu fa am mosu ñoo xam ne sax Yeumbeul Sud la ñu bokk c'est sous le de Bara Gaye ko yëg en quoi faisant wér-gu-yaram moom mooy première préoccupation wu doomu aadama mais mu tabaxal leen poste de santé alliance Pacoti mooy mooy mooy Cheikh Sidaji Fall Pacoti tabax logement ICP ak ak ak ak femme de charge bi euh, euh, sage femme bi pour ñu mën faa nekk di faj askanu Afia jóge fa defar fa collège collège Imam Sakhir Gaye yëmbal mosul am collège de toute son histoire c'est le premier collège tey jii ñu ngi entame deuxième niveau bi pour mu nekk lycée loolu ay ay gis-gis la centre commercial bi gën a Yagny ci département de Pikine yëmbal la nekk muy centre commercial Al Maktoum ñu ngi jëm ci inauguration bi sax pour l' information les premiers et le octobre incha allah donc centre commercial bu 106 cantines mais ultra moderne équipé de caméras de surveillance lu mel noonu kenn mësu koo gis ci biir département de Pikine loolu mooy ambition loolu mooy vision école Madi Ndiaye ñu koy toj di ko defaraat parce que ku ne xam ne ni saa yu mbënn mi amoon mais école bi dafay dafay inondé benn partie bi dafay inondé di abrité beneen partie bi ay sinistré loolu dafa war a dakk loolu moo a côté bi inondé classe yooyu yëpp ñu toj ko di ko defaraat balaa la rentrée ñu livré ko ñu livré ko directeur bi euh, Farba ñu ngi fay defar terrain basket bu bees ak place publique sans compter les deux places publiques yi fi am sans compter bibliothèque mosul am ci commune bi am na le deuxième niveau de la mairie parce que problème mu bureau la ñu amoon bi mu njëkk ñu loolu mooy gis-gis bu ñu ñëwee acte trois de la décentralisation dafa ñëw confier ñu yeneen compétence yeneen service amuloon fu ñu loger service yi mais administration lan lay prévoir dans pareilles circonstances dem louer ji ay locaux bi mu demee gis benn immeuble bu ñu war a louer waa ji wax ko lu mu koy louer location bi par année mi ngi koy dikkee dans les douze millions presque mais mu xool ni mais lii di ko fay pendant sept ans ci suma magistère wala pendant cinq ans te du tax nga moom ko mais nañu wut xaalis bu ñu tabaxalee Euh, service yooyu ay ay ay locaux ci biir mairie bi ñoom ñu des fi loolu bañ a bañ dem ci ay particulier 16 millions lañ tabaxee deuxième niveau bi mu régler problème bi yëpp yeneen yeneen service yëpp kenn ku ci nekk am sa bureau donc gis-gis boobu ci loolu la Bara ngay nekk les adversaires amul dara lu ñu mën a teg sur la table. mais mais mais mais problème bi problème bi ndax ndax la la parce que man ce que j'ai vu euh, jëmbal amul marché amul yi nga xamante ni am ressource comparé à marché Thiaroye bi nga xamante ni am na marché bi gën a mag ci euh, Afrique de l'Ouest mais à chaque fois man li may gis moom mooy baara mi def ay réalisation alors que am na ay personnes yu fa ne yoo xamante ne war nañu mën a jàpp ci euh, développement de yëmbal y a le ministère de de de de l'économie amul ot fa la fa nekk ci li mu wax nee na foofu fa la fa la dëkk donc am na ñeneen a ñeneen mais à chaque fois ñoom ay ñooñu ñoom ñooy génn di ŋàññi ki nga xamante ne moom mooy développer Bara Gaye malgré effort yi muy def ngir développer ndax cela veut dire que dañuy lorñe rek li nga xamante ni moom mooy place bi wala boog dafa am beneen contentieux boo xamante moo am ci diggante Bara ak nguur gi parce que il est xam nga Bara Gaye dafa am lu ko sonal mooy 2014 bu muy dem élection moom moo nekkoon le candidat le plus jeune te yëmbal amoon culture fal nag ay mag. loolu nekkoon benn déclic. Mm. bu doy waar boo xam ne bi moom ba nit ñi di jubilé moom daf tiitaange lu ko lu ko jural suñu première rencontre après élection dafa ne nañu def jàngat ci lu tax ñu fal ñu parce que bu ñu ratee boobu étude non suñu suñu magistère dañ koy rate lan moo tax ñu bàyyi fi ñëpp fal ñu te ci gën a ndaw ñi nekkoon candidat ñëpp mënoon nañu koo jur mais moom lañu tànn ñu gis ni yëmbal dafa bëgg a lu ñuy wax alternance générationnelle dañu bëgg a ñam xale yi xool lan la ñu capable ñu gis ni yëmbal nawlu nañu parcours am en tant que homme politique récent mais dugg ci biir partie politique engagé wu ci imposé wu ci ba nekk ci secretaire général UGTEL jóge te nekk ministre conseiller sur les questions de jeunesse donc nit ñi nawlu nañu boobu parcours jóge ci euh, am portefeuille agenda portefeuille relationnel boo xam ne bi nit ñi yaakaar nañu connaissance ak expérience boobu mu am war na mën a apporter un surplus ci yëmbal ñun loolu la ñu jàpp comme conclusion mu ne kon nelaw jeex na parce que tey suñu mandat bi ñu ce n'est pas le mandat de Bara Gaye c'est le mandat de la jeunesse bis bu ñu échoué bépp ndaw bu soxlaa te nekk jeune fii dina la jafe ndax dinañ ne kat essayé nañ ndaw ñi waaye ndaw ñi échoué nañu échec bi du yem ci suma bopp ci bopp jeunes yëpp loolu il faut que jeunes yu yëmbal sud yëpp conscience yi y compris ñi nga xam ne ñooy samay opposant te loolu tey réussir nañ ko alhamdulilah boo doon waxtaan ak Bara Gaye daf lay wax ni moom il est le premier à être de son résultat 2014 koo waxoon ne ko fi ci résultat du ko gën tey résultat bi mooy lan egguñu ay élection mais toutes les candidatures déclarées sont des candidatures jeunes alhamdulilah rabil alamin ay xale rek ñoom ñoo déclaré seen candidature pour wax ne dañoo bëgg a remplacer Diatta Gaye kon cela veut dire que jeunesse bi dem nañu gëm nañu seen bopp xam nañu bal possibilité la collectivité am pour nga mën a jëriñ sa askan. leneen li topp mooy bañ ko falee ñoom jàpp nañu ni voilà il est dans l'opposition il est dans la dèche du fi def dara nañ ko bàyyi ak askan bi dinañ xool mais dimbalu suñu boroom ñëw. tàggat bi ko Ablaye Wade tàggat ndax fépp foo dégg muy wax mi ngi wax ni ko Ablaye Wade jàngalee liggéey ak ni mu ko tàggatee ci loolu. jël ñi mu àndal ñëpp nekk ay ndaw sacrifier seen lépp di liggéey su ak ngoon bu guddeeg bëccëg lenn rek la ñuy jaamu mooy waaw góoru waa yëmbal fu mu toog da koy wax yëmbal daf maa yónni yàkkamti ma ci loolu lañ nekk nekkuñ ci leneen. Mm-hmm. moo ko jural bii résultat donc résultat boobu nag euh, du loo du lu ñuy wax. kenn ku ci nekk ku ko bëgg a xam da jàpp ci loxoom ba foofu du ne ne réalisation baa nee naa la réaliser na ba réaliser loo xam ne du woon compétence am bu ko defaloon kenn du tax baar def ko. collège bu ko maire deful kenn du maire bi toog na fi ba jóg fi te def ko d'autant plus que benn maire def ko fi. Mm. lycée noonu poste de police mais la sécurité ça c'est c'est un domaine exclusivement réservé à l'État du Sénégal. Mm. mais gis na jafe-jafe yi nga xam ne askan bi nu mu ko doon jànkonteel ci wàllu insécurité. fii yëmbal fait divers bu fu mënti am da dégg da doon dégg yëmbal mais tey jii yëmbal am na poste de police boppam tey boo fa demee ñu ngi tabax deuxième niveau pour mu nekk commissariat pour ñu mën fa di déposer carte d'identité di fa déposer passeport yenn service yi nga xam ne dañ koy soxla ci wàllu police doomu yëmbal bañ a déplacé loolu mooy vision bi loolu mooy gis-gis bi mais amul lenn loo xam ne wax dëgg yàlla mën nañ ko ko reprocher en terme leneen li si topp moo nga ma bëgg ngeen am solo loolu mooy au-delà des réalisations dafa am modèle de gouvernance bi nga xam ne bi da ko indi Bara Gaye c'est un maire dans l'opposition nekk ci commune bi gën a tuuti amul marché comme ni nga ko waxee amul infrastructure amul ay recettes fexe na ci biir pexeem ak tàggat bi ko Ablaye du tàggat ak ay partenaires ak ay relations ba def réalisation yu ëpp réalisation yi nga xam ne ay maires yi nga xam dañoo bokk ci état am euh, soutien programme état am soutien au président de la république sax defuñu ko mm-hmm. mais li ko ko may mooy un modèle de gestion concerté mandat bi depuis le début 2014 ba léegi mosu leen dégg mouvement d'humeur bu jógee ci benn corporation bu mu mënti doon dem di jàkkaarlook maire di xeex amul. Mm. leen rek moo ko may lépp lu mu xalaat day woo ñamu concerné waxtaan ak ñoom comme ni ko saa waxee sànq ci ci ci ci ci maire ak les chauffeurs. Mm. ba pare jël ci décision déci mosul jël décision te concerté wala ñi nga xam ñoom la ñoom ñoom ñoom la war a moo tax opposition.

ñenn ne dañuy def ay lot euh, de de résidence ne dañuy dañuy def ay projet ay ay financement yooyu yëpp dégg naa ko fa donc mbir mi na nal demee ba tax ngeen xaw a bloqué tuuti li nga xamante ne moom mooy wàllu délivrance su certificat de résidence yi waaw bala bala may ñëw ci loolu dama doon terminer juste pour dire que yëmbal lépp li nga xam ne jafe-jafe la ay doomam bu ñu dajaloo hmm. dañ koy régler seen bopp hmm. dama bëgg a jël rek exemple inondation yi c'est ren ji yëmbal bokk na ci commune yu gën a inondé ren ji ren ji bokk na ci at yi ñu xam ne ci lañu gën a noppaliku surtout ñun collectivité locale mm-hmm. ren la la effet yi gën a gën a gën a gën a atténuer xam nga lu ko waral mm-hmm. doomi yëmbal yëpp dañoo dugal seen loxo ci inondation yi mm-hmm. tout le monde amul benn point baa booy dem du Afia 1 du Afia cinq du Alwaar du du ba du Jidda fenn fooy dem te doo fekk dispositif xam nga lu ko waral parce que tous les hommes politiques dañoo wàcc sur le terrain avec des moyens jox ko askan bi loolu bu ñu ko dëkkee woon pendant sept ndox mi jóge fi. toog nag mooy waral ay gaaf on peut dire ñan la opposition bi la wala ay doom yëmbal lañ nekk rek. mais mais l' opposition ils sont dans l' APR tous seen i moyens sans complaisance moo tax ren dañoo noppalu. tombé nag moo waral ay gaaf année électorale la mais am naa yaakaar ni du fi yem. dama la jox benn exemple <clears throat> taw bi bi mu bëree ba baare ba ba ba ba sonal askan bi. askan bi dëkk wetu marché boobu dañoo génn baare tali bi ne ñun du ñu fanaan ci ndox mi tey le ministre Amar Khott doogu ñëw jël caterpillar déblayer barax bi nga xam ne barax bu doy waar la boo xam ne bi depuis 2014 mi ngi fa di tere ndox mi di jàll mais bañ ko déblayer pendant cinq jours ndox mi dafa commencé di dem est-ce qu'il est attendre ba situation bi toll foofu pour ñu agir donc pour dire que ni nit ñi kenn ku nekk la la war boo ko defee noo problème dootul am mais boo dee xaar ñu wax la ko nga doog ko def wala ngay xaar sa soxla jot danga nga soxla askan bi pour ñu watal la nga dog koo def loolu moom mooy suñu jafe-jafe mais ni ñu ko songee ren bu ñu ko doon ni songee chaque année kenn ko waxati li ma ci li ma ci naqari rek te te metti ci mooy déwén dañ cee a wéetati ndax ñoom ñëpp duñu leen gis déwén mais ñoom ay doomu yëmbal lañ dañu war a yëkkati seen alal ni ñu ko defee ren ñu continuer ko noonu askan bi noppalu ren ji yëmbal bu tawee deux jours trois jours kenn ku nekk mën ngaa duggaat sa kër dama lay jox ay exemple firnde yu leer Madi Ndiaye chaque année da doon abrité ay ay ay ay ay ay sinistré euh, ak gis nga loolu chaque année da doon am ay mm. sinistré tey amul te pourtant ren mbënd maa ngi fi bëri na bay bëgg de dee parce que effort yi ñu ci def mm. ak xaalis bi ñu ci dugal dafa bëri loolu warul dakk te ñu ko def ñëpp ay doomu yëmbal lañ mm. donte ci ay parti la ñu nekk am seen ambition politique mais loolu bu weesoo li leen war la ak askan dañ cee war a sax donc pour ñëw wàllu résidence yëmbal mosul am problème résidence loolu rumeur la boo xam ne waa APR ñoom ñoo koy véhiculer te du ñu bëgg a ci benn euh, légèreté man loolu laa ko jàppee. Hmm. bi nga xam ne bi moom la état décidé ni les euh, les les préfets les sous-préfets dañu war a délivrer résidence. même même loolu sax bu waree am dañu war a xool collectivité yi nga xam ni askan bi dañoo am jafe-jafe am résidence. Hmm. man benn jour gi génn naa def sorti ma ne je prends au défi quiconque bépp citoyen yëmbal waa bu wax ni man ñëw naa ci mairie bi yore sama domicile soxla résidence te ñu xañ ma ko amul la preuve. monsieur le maire Bara Gaye woo un adversaire politique waxuma un militant de de l'APR un adversaire koo xam ne candidat la. à sa succession muy Omar Sow. Mm. bokk APR ba mu ñëw ba mu koy délivrer résidence moom moo ko délivrer en personne en personne ñu fotow dugal ko ci réseaux sociaux yi ñoom ñaar. Mm. kon ki mën a délivrer certificat de résidence sa adversaire bi nga xam ni fa nga toog la bëgg a toog mais doo ko xañ ay militants rawatina ñu dëkk ci commune ci jox ay instructions fermes l'officier d'état civil ne ko coowal résidence bëgguma ko dégg ci suma. commune loolu coow li sax commencé ko loolu moo tax ma def acte bi képp ku soxla certificat de résidence jox ko ma loolu coow li jeex na mais nag ay responsable politique bu APR bu ñu ñëwee indi classeur ay photocopie carte d'identité ñun ñëpp dañoo bëgg certificat de résidence hmm. attention ah. mu leen ñu fonto demal nga jox kenn ku nekk ah. photocopie mu ñëw bu ñëwee ñu jox ko ñu jox ko mais bu ñu wóoree ni kooku dëkku fi mais hmm. doo ko jox ah. parce que nag officier d'état civil bi ku toog ci kanamam bu la laajee ñaari question na xam ndax dëgg nga koy dëgg hmm. euh, euh, ma laajee ñaari question rek la may laaj nga dëkk naa fa wala dëkku fa boo fa dëkkul nag du du du gars duñu sawar bi leneen amul benn benn problème boo xam ne bi mën nañ ci joxe benn cas ni diw dem na fa soxla na certificat de résidence amu ko amul hmm. parce que ñun ci luñu jëm ragaluñu ko Bara Gaye dafa liggéeyal askanu yëmbal sans complaisance sans réserve te résultat yi tombé adduna bi yëpp di ko seede meilleur maire da koo jël on essaie combien de fois mm. le 12 bii di ñëw dañuy dem ci benn cérémonie boo xam ne dañuy consacrer les maires de Pikine mm. dañ ciy dem dañu gëm nañu ni ñoo jël ñooy jëlaat waaye meilleur maire mm. parce que la ñu def ci ay réalisation ci biir yëmbal amul maire bu ko def ci Ndakaaru loolu moom dafa dafa leer du loo xam ne lu ñuy lu ñuy lu ñuy léeb la donc loolu la ñu yaakaar ni teg ko ci bëtu yëmbal waaye ba yëmbal waaye teg seen bët suñu adversaire nag xam nañu yëmbal mënuñu faa am dara moo tax lu ñu yaakaar yëpp ci transfert yi te wax dëgg yàlla mesure boobu gouverneur jël may na leen ñu dem ci ñu contourner ñu dem préfecture am fa ay résidence transféré fa ay nit ñu dul jeex waaye le dernier mot reviendra au Yeumbeul waa moo tax ma doon dànkaafale délégué de quartier di leen wax ni yéen ñu joxe seeni domicile vierge pour ñu koy remplir di ci transféré ay doomi aadama yu jógee feneen mais na ngeen assumer seen responsabilité devant l'histoire parce que ñoom ñëpp identifié nañ xam nañ leen loolu dafay dafay dafay dafay dafay saltel le jeu démocratique mm-hmm. sànq saway wax ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkk di fa yeewoo bàyyi leen ak sañ sañ ñu xool bu leen neex ñu tànn ko parce que nag tànneef bu bon dañ koy assumer tànneef lu ñuy assumer la bu baaxee nga assumer ko bu bonee nga assumer ko boo tànnee maire mu dem ba ci biir mu xam ne dafa bon it yow na nga assumer ni ah man mi mën maa ko choisir mais bu fekkente ni ñeneen ñoo la ko choisiral mais loolu dañ lay porter préjudice te loolu la bañ mm. xeex boobu nag dañ ciy woo ñëpp ñoo ko war a bañ mm. c'est vrai que euh, liste euh, am na yeneen étape bisu élection dina ñëw képp ku fa ñëw jóge feneen ñëw bi voté foofu dañ koy dañ koy digaale ak yow loolu yëpp dafay wax naa ko ci keroog sous préfet nee naa ko ça c'est des pré c'est des nii moom mooy indi violence électorale parce que nit ñi dañuy gis ay injustice di ko di ko accumuler ba bisu vote ngay xool ay ñeneen ñoo xam ne yeewoowuñ fi bokk leen jafe-jafe bokk leen destin ñu ñëw di la tànnal ki nga xam ne moom moo la fa war a moom moo la war a dafa ñaaw loolu dafa ñaaw loolu citoyen bu ne waru ko moom mooy jafe-jafe bi mais li ñu mën na wax foofu suba ak ngoon ay intox la parce que tamit bu ko deful du ñu existé l'opposition n'a jamais existé pendant le règne de Bara Gaye amul. voilà mënul mësul donc yow tamit aussi je pense que am nga jàngat ci coowal résidence yi du ñàkk ne am na Louga wala boog euh, fenn foo xamante ne am nga fa ambition pour pour nekk fa maire wala boog nekk fa conseil du genre xam-xam ndax am nga ambition yooyu donc yow aussi ban gis-gis ngay am ci jamono jii ñu jëm ci wàllu euh, wàllu élection. ku ci nekk di di ŋàññi sa moroom ku ci nekk di kii sa moroom euh, politique bi ñi ne wax na dañuy déposé ay ay list euh, parallèle euh, président ne kenn fi déposé donc yow ban gis-gis ngay am ci politique bi jamono ji mu nekk politique ŋàññante ci 2022 bi ñu jëm ci élection xam nga sa waay analyse bi mu def dama koy rafet rafetlu gis nga farfen du tee nga wax dëgg ndax ndaxte dëgg yàlla moo ko moom ñun moomuñu ko nit da ngay wax dëgg te yàlla tax boo waxee dëgg nit ne dañuy xam ne wax nga dëgg hmm. boo waxee lu dëgg moom ay fen moo fi nekk amul ci diggante bi dañ naan plus moins ni plus ni moins c'est une façon de parler donc certificat de résidence yi xam nga li mu la wax nii ne la officier d'état civil dafa am pouvoir boo gisee maire bu ñu ko falee principe du déroulement fonctionnel la yam maanaam le maire c'est une autorité locale c'est un représentant de l'État ñu bari dañuy fàtte casquette boobu officier d'état civil mën na ko délégué keneen mais ki mu koy délégué quartier bu ne c'est pas pour rien muy am ay délégué de quartier yooyu ñoom boo demee mën na la wax attestation ay attestation yu wan ne mais euh, tel quartier man attesté naa ne diw mii fii la dëkk xam nga xam na ko su ñëwee maire bi du dutewu question yi mu lay wax wala adjoint ñu jox la ab certificat de résidence mais jël ay nit ca àll ba kenn xamul fu mu dëkk xam nga ne fu mel ne Louga wala Podor geenee nga dégg coow la parce que xam nga ne ñu sant taal ak ñu sant nangam ak nangam ñoom suñu fa gisee beneen sant gis fa beneen nit à moins que mu ne jigéen bu fa sëy si a xam ne kii dafay sëy si bu boobaa posé wul problème yow ku sëy sa kër boo ko defutoon certificat de résidence loolu mënut a problème ñii dañu xam ne ba chef de quartier ba xam na ne fa la dëkk diw ko jur jabaru diw la loolu du posé wul problème mais jël ay nit def oto xam nga li xew Podor gis naa ci Facebook xam nga réseaux sociaux moo tax lu bari léegi tappale yi feeñ. ñu jël ay nit yu mat trois cent déglu ma racine si ci boppam man li may wax nii du lu may nëbbatu lu ñu gis la ci ci mu ngi ci réseaux sociaux yi boo tàppee gis ko. jël lu met ay trois cent personnes jël yóbbu leen sa commune Podor pour bëgg ñu inscrire foofu wut ay certificat de résidence pour lan préparer élection. waaw léegi yow loolu bu faloo boo faloo en âme et conscience xam nga ne falu nga mais ñu dëkk ci dëkk ba faluñu la loolu lu ko gën a garaaw est ce que xam ngeen amul maanaam loolu ñàkk sa bopp loolu maanaam saaga askan wa nga dëkkal la. pour lan parce que am na jigéen ju fa nekk maire ay sal sal moo fa nekk maire ma nga fay def yow demal nga def nga bàyyi ak peuple bi ñu arbitré mais boo gëmul sa bopp da dem li ko kii wax Balla Gaye ma nga ca fa mu dëkk ñoom ña fa ne ñoom ñuy xëccoon buñ gëmul seen bopp dañuy dem transféré ji ay nit jël jël waa waa waa waa golf wala jël waa waa waa population euh, feneen Kër Massar andi leen foofu jour voté ñoom boo leen taxawloo ci mbooloo mi sax ñu ñu gëstoo ñuy xoole parce que xam nañu dëkk xam kii wu wax dëgg la mooy la ak lay xew lu ñuy ñaawlu la beneen bi mooy nga gis waa ji ay nitam di ñëw di di inscrire nga nga nga jël ay nit fay leen xaalis naa leen dal leen ci kaw nit ba pare nga feeñ ñu jàpp nga bëgg a tuumaal nit ne diw moo ko def gis nga xam nga ne Racine si lii mu def Podor dafa ñaaw defoon na ko de ca élection 2014 ñu gagné ko mu mu bëgg a euh, ger ay ay attekat pour pour verdict cour d'appel bu Saint-Louis jox ko jox ko ndam ci kaw kanam ay sal ay sal sal parce que waa Podor moom lañ fal lu tax waa Podor ko c'est parce que dafa dem nekk ak ñoom peut-être waa peut-être gis ne kii moo gën ci ñoom moom na dem liggéey rek bu gisee ne bu tegee lu gën a wóor ne loolu liggéeyul wala man maa ko gën a man askan wi fal ko gis nga askan wi bu ñu leen bàyyee xam nan ku baax ak ku bon ak ku tane bis buñ juumee te bu élection ñëwaat ñu xam ne dañoo juum ñu jël seen i responsabilité comme ni gis nga certificat de résidence yi maa ngi alerté président il faut qu'on fasse très attention parce que processus électoral ku yaakaar ne si foofu la yem kii wax na ko de processus électoral début bi bu fekkee dafa am ay ay ay ay ay problème ñu bàyyi ko après ci kanam ay ay ay tractation moo ko émaillé lu ne mën na ci xew parce que peut-être dégg nga ñu ne am na ay nit ñun sa ñu ñun gaañ ak yooyu parce que ñun gaañ effectivement d'après information yi ma jot ca quand ay sa sal nañ jot parce que ñoom ñoo ne du nangu ay nit ñu transféré plus de trois cent euh, électeurs man ma mi ngi fii am naa ko sama sama programme mën naa la ko woon seen tur yi fii ci ay liste dugal nañ leen ci ci Facebook bi ñoom xam na nañ bu buñ liiree ay tur danañ xam ne ñii fii nañ dëkk wala dëkkuñu fi yenn sant yi rek nañu xool xam ne dëkkuñu fi ah mais dëkk Sénégal nag am nañu ko yàlla binde noo xam ne dëkk boo dem dafa am ay sant yu ëpp ca gox boo dem tey Fillon boo fa demee am ay sant yu fay ëpp ta man na am ndax benn nit bu jógee ku sant nii dem ñëw fii parce que cohésion social sax moo tax Sénégal nit ñi sant yi jaxasoo nañ lépp mais nag attention loolu war nañ koo xoolaat loolu ñaaw la Racine Sy li mu def lu ñaaw la lu ñaaw ñaaw lu ko gën a ñaaw amut man bu ma ko gisee daanaka jooy laa doon bëgg a parce que def nga ko koo xam ne si ne sa sœur la jigéen la ay nit ñoo dem wóolu ko fal ko muy liggéey ah yaw nga ne yor sab xaalis di ko lekk nekk Dakar di luy ay nit di yóbbu foofu loolu mooy la ñu ñu ngi benn boo ci biir Sénégal wala boog mairie euh, bu xamante ne Louga la ndax da nga am ambition jamono ji rapidement ñu tënk parce que. 2000 non man dama lay wax li fi nekk man boo pour pour pour dire vrai mairie bi nga xam ne si bu Louga la dafa am ku fa nekk di fa liggéey mm. te ma gis ne diggante bi mu fi nekk ak léegi li mu fi def mm. pendant presque quarante ans mm. quarante ans laa lay wax ni parce que ñun tamit am na lu na daaj comme ni ko kii wax lu ne fànn kenn du ko jeex ñun gis nañ ne la mu fay def wax dëgg yàlla gis gisuñu keneen koo xam ne si a ah, bon am na ñu fa dégg ñuy déclaré ne candidat lan am na ci koo xam ne ancien inspecteur impôt domaine te moom lañ tuumaaloon ci affaire ay 94 milliards moom lañ dégg ne bon dafay ñëw nee na candidat la ca mairie ba waa Louga ñooy tranché danañ xool ba xam ku jub ak ku mm-hmm. ak kun yaakaar ne am nañ ci yow yaakaar ak ku àndoon ak ñoom mm-hmm. ci début ba parce que Balla Gaye mii mu wax UCL la nekk Moustapha Diop nekkoon na fa ak comme na mu fa nekkee woon ay jeunes lañ yoo xam ne tamit wax dëgg yàlla coow lee fi nekk ay ambition lañ am ca bani xale xaaruñu gis nga Sénégal li koy bëgg a yàq mooy nit ñi nga xam ne dañuy xaar bay bëgg a màggat am cinquante ans soixante ans naan dañuy xëccoo fekk dañuy nangam di làqatoo di wut fu ñu wër ak yooyu ñoo ñoo nar a yàq réew mi nañu alerté population bi ñu def nànk xam nit ñi leen ni utiliser pour seen i bëgg-bëgg ak nit ñi xam ne dañuy politique di làqatu ñu ñu xam ko. yoo koy jàppale. non man mais Moustapha Diop moo fa nekk lu question jàppale moo jàppale askan moom nan xam ba mu amee 13 mm. ans ba léegi mu nekk ci Louga di di gëtt gëtt mm. moom nan fa xam ñi ñuy wax fii yëpp mm. ay sàcckati xaalis lan woon sàcc xaalis fële wala ñu tuumaal leen ñu ñu ñu ñuy daw di ñëw pour ku leen làq askan wi bu leen làq kenn ku jub nañ leen jàpp Macky Sall bu làq kenn ku jub dóor dóoral mu daan. nga nga man man loolu mooy li ma gëm. nga tàggatoo wala benn li ma bëgg a wax mooy di ñaaxaat askan wi ñu xam ne élection yi ñu jëm ñu def ci attention jël seeni responsabilité xam ne fal dafa nekk doy waar boo falee nit mu baax ga tàcc boo falee nit mu bon nga am loo rëcc pour rectifier beneen bi aussi mooy. nit ñi nga xam ne si dañ leen woo di leen neexal pour bëgg di leen yóbbu ci ab dëkk di leen inscrire rek yooyu ñu mooy ci loolu bu leen ko defloo ñu bañ faa dem voté ji parce que lu leen ca fekk ñoom ñoo tooñ seen bopp parce que tamit kii wax na ko li wax dëgg la de parce que gars yi jeunes yi léegi dañoo jóg takku duñ nangu mukk benn waay bu dëkk ca fële ñëw seen dëkk ah di fal koo xam ne si ne moom leer na ko ne bu ñu ko bàyyee waa dëkk bi duñ ko fal parce que waa dëkk bi am nañ ay jafe-jafe nit a ngi ñoom di ànd ak ñoom am nañ problème nit ñi ngi ñëw di ànd ak ñoom nit kooku ñëw laaj dëkk ba benn waay boo xam ne day nekk Dakar di noos wala sàcc na ab xaalis wala xamul nu mu koy def ba a ñëw rawalee ko ci askan wa mais ñun xam nga loolu kenn du ko nangu nag. Mm-hmm. kenn du nangu lool loolu daal mooy mooy yi nga xam ne si moom laa doon la euh, di di a wax di rafet rafetlu aussi émission bi di nuy au passage sama co-débatteur bi mm-hmm. di saluer aussi. Euh, di ko wax ne ko aussi ni mu nuyaaleel. Bara Gaye di ku jàmbaar aussi ca fa mu nekk. voilà donc euh, nga tàggatoo wala benn yoon rek euh, xanaa euh, question bi ngay kii à 30 secondes rek boole ko ak tàggatoo bi muy Bara Gaye ñu waxoon ne day day day fekk ñu Macky Sall. <laughs> waaw xam nga Bara Gaye li ñuy wax ci moom dafa bari trop léegi sax dama ci dégg yeneen rumeur ñuy wax ne Bara Gaye PDS du ko investir ci biir local yi ñu jëm loolu xaw ma nu ko nit mën a xalaatee ndax loolu jëfi traître la te PDS du parti traître PDS sañu ñu def loolu Bara Gaye Bara Gaye li mu enduré pour le PDS amul tey benn responsable politique PDS bu enduré lu toll noonu au prix de sa liberté te dina 6 mois fekk frère am Karim Wade au en prison jóge ca yónnee nañ ko kilifa gu ne pour wañaar loxoom pour réduire ko en silence wala mu fekki le régime en place mu lànk teg nañ ci table bi alal ju dul jeex pour mu dem mu lànk nekk maire def résultat yu gën a rëy ci Sénégal ci maire yi fi ne ba pare askanale ko PDS kon PDS li ko waraloon Bara Gaye mooy di ko cëral waaye pas di ko di ko di ko trahir moo tax loolu xalaat ko sax du xalaatu nit PDS sañul jiital jëmbal suuf bi keneen ku dul Bara mm-hmm. loolu bu demoon ba seytaane dugg PDS ba mu nekk ci boppam sax bu ñu ñëwee section PDS dañuy amee problème ndax section PDS ñoo dul nangu foofu traite amu fa ñoom xam nañu li Bara Gaye daj pour le PDS la mu fa daj kenn daju ko fa ñam fa fekk moo ci gën a ndaw wax naa la ko sànq bu muy ñëw di adhéré biir PDS ña fa nekk responsable fekk nañ ñu def 30 ans 40 ans de carrière politique yàlla dimbal na leen nag seen ndam yu gën a rëy dem nañu ba gañe mairie mais bu ñu demee ba am doom seen biir bu transcender arrondissement bi département bi région bi ba am envergure national ak internationale loolu sagu responsable politique bu PDS yu yëmbal si ah, kon ñooñu li leen war rek mooy ñu aar ko yiir ko jiital ko toppatoo ko ba lépp li nga xam ne bii Thiès amoon na ko ci Idrissa Seck Baara Gaye indil ko yëmbal ndax mën na ko lépp li nga xam ne Macky Sall euh, Fatick am na ko ci moom yëmbal am ko ci Baara Gaye ndax ñun loolu loolu mooy suñu combat hmm. loolu moo war a nekk combat bépp PDS man ci biir yëmbal ci heureusement ñoom ñëpp comprendre nañ loolu donc loolu vraiment hmm. euh, c'est un faux débat le moment sera venu li am solo rek mooy Baara Gaye dafa am ambition pour yëmbal digganteem ak ambition nag xajalu ci kenn dara lu mën a tax lu mën a dox ci digganteem ak ambition bu mu am pour askanu yëmbal si voilà nga tàggatoo ci loolu nag vraiment maa ngi lay euh, remercier bu baax a baax ci mm-hmm. invitation bi mm-hmm. di la encourager di rafetlu euh, format émission bi ak seen liggéey bu baax di euh, dellu di gërëmaat askan bi nga xam ne moo ñu doon seetaan boobu ak léegi di ñaan yàlla li fi yëkkati ci kàddu mu doon luy jariñ Euh, lépp li nga xam ne tamit njuumte la nañu xam ni rek euh, a baax. voilà donc euh, jërëjëf sama invité yi nga xamante ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Sagna nekk directeur de cabinet bu mairie de Yeumbeul Sud Bara doon dalal aussi ki nga xamante ni aussi mooy sëñ Abdou Khadre Ndiaye nekk expert en sciences politiques nekk aussi fa nga xamante ni moom mooy COJER bëggoon nañu nag développer bu baax a baax baax mais heure bu mooñ ko mayul xam naa dinañ am beneen jotaay boo xamante ni dinañ gën a mën a xóotal waxtaan wi di ni yéen a taamu lii di seetaan lii di Rewmi TV à travers votre émission euh, biir réew mi di jaajëfal képp koo xamante ne yaa ngi ñu topp suñu réseaux sociaux yi leen wax ne wéy leen di def seen abonnement aussi def seen ay commentaires ngi mën di euh, joxe seen ay impression ci émission yi leen jox di dajee la semaine prochaine ci beneen thème ak yeneen invité fii ci Rewmi TV